tahabbtum afshu salama bainakum shouldn't i tell you something that if you do you will love one another what is it afshu salama bainakum you know spread salam amongst you then one brother brother Saifu he comes whatever he does he comes to me and says salaam alaikum <laughs> i said mashallah he was trying to apply the the hadith and that's how it should be done but la tafrit wala ifrat everything that brother you can have you have you have room there mashallah jazakumullah khair mashallah barakallahu lakum shakarallahu lakum everything that makes one feels good Allah Ta'ala says that if you do so then even your worst enemy will show love not necessarily will love you but will show love فإذا الذي بينك wa baynahu adaawatun ka annahu waliyun hamim ka annahu waliyun hamim and everything that yujibul mahabba everything that can cause love or cause one to show love he says you want to make sure you do that with your family members he said walaw bi tafaqqudil hal how are you it's been a while even texting a message and saying assalam as the holy prophet sallallahu alaihi wasallam afshu salama uh, bainakum And then the next wasiyah is the opposite of this wasiyah. The next wasiyah, the next advice is the opposite of, of this advice. This advice is to make sure we have good relationships with our families. The next one is to tajannub, tajannub mu'adatil arham, to make sure that we stay away from creating any, you know, enmity, adversity you know, between us and our family members. Allah tabaraka wa ta'ala says in the Quran, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Then comes the qurba wal yatam wal masak. The family members. And the closest family member to you and I are what? Our parents. Ahmad Shawqi rahmatullah alayhi when praising the Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam said, وَإِذَا رَحِمْتَ فَأَنْتَ أُمُّنَا وَابٌ هَذَانِ فِي الدُّنْيَا هُمَ الرُّحَمَاءُ He says to the Prophet, if whenever you show mercy, we see in you a mother and a father. And these are truly the merciful ones. wa idha rahimta fa anta ummun aw abun hadhani fi dunya huma rahma these are the people who love you my brothers and sisters many people show love but their love is conditioned but the love of one's parent has no condition that's why Sidna Abdullah ibn Abbas radiallahu tabaraka wa ta'ala said that there are three things in the Quran they will never get separated three things in the Quran. Whenever Allah Tabaraka wa Ta'ala says, Aqimu Salah, right after what comes what? Wa atu zakah. You cannot separate Salah from Zakah. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون And he said, whenever Allah Tabaraka wa Ta'ala asks us to obey him, to obey and follow his orders, right after comes to obey who? Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam because amrullah aynu amri rasulillah atiu llaha wa atiu rasul wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduh he didn't say an yurduhuma innama qal an yurduh in kanu muminin may Allah tabaraka wa ta'ala make us all true muminin amin And number three, he says, whenever Allah Tabaraka wa Ta'ala mentions to worship Him, whenever He says to worship Him alone, without any type of shirk, right after comes what? وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِحْسَانًا And show goodness, be good to your parents. And Allah says, وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا But what? وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا Even if you happen to have your parents from or to be part of another deen, another aqidah, another, you know, religion, he says, even if they invite you to commit that which is shirk, the way you reject that command has to be with idib. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا You should show them respect no matter what. As the poet said, على لسان الحضرة الربانية تذكر جميلي فيك إذ كنت نطفة ولا تنسى تصويري لشخصك في الحشا وسلم لي الأشياء واعلم بأنني أصور أحكامي وأفعل ما أشاء الله يذكرنا بجميله ولم نخلق بعد أو لم نولد بعد ونحن في أحشاء الأمهات سبحانه wa ta'ala. So he says to stay away from doing anything that will cause enmity, that will cause hatred, that would harm our parents and our family members. تجنبوا معاداة الأرحام says Sayyidina Sheikh Ahmed Tijani al-Hazani رضي الله عنه تجنبوا muaadaat al arham wa uquq al walidayn wa kulla ma yujibu daghinata fi qulubi al ikhwan wa kulla ma yujibu daghina fi qulubi al ikhwan one of um, the most important things one of the most interesting things is that when you look at the Arabic letters you can find that the weakest letter the weakest letter what is the weakest letter in the Arabic alphabet the weakest letter in the alphabet, Arabic alphabet أضعف الحروف الهجائية هي أو هو حرف الفاء الفاء فا is the weakest letter in the Arabic alphabet like, طا is the heaviest letter Allah تبارك وتعالى tells in the Quran huh? do not tell to your parents what do not tell your parents what huh? uffin uff even uff which is this the weakest you know type of complaint of showing enmity, of showing adversity, of showing uquq, of showing disobey, disobey, of disobeying, he said, you cannot say, you cannot do that. Mm, ma'am, for example. He said, وَلَا, ت... وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا Let alone, <laughs> uh, you know, you can. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا قَوْلًا كَرِيمًا So Allah Tabaraka wa Ta'ala in the Quran, my beloved brothers and sisters, from this wasiyah of Sidi Ahmed Tijani, we can see that Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us every single thing to do in every single situation. You know, in other words, Allah has full control of the believer's life. And only if Allah has full control and we accept that control, we are at peace with ourselves, we are at peace with the world. Allah Tabaraka wa Ta'ala makes us know that we cannot speak when it comes to our voice. What does he say? Wardud min saltik. Wardud min saltik. Lower your voice. وَضَبَّتَ مِشْيَتَنَا subhanahu wa ta'ala. When it comes to the way we should speak uh, or we should walk, he says what? وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا Whenever you walk, make sure this is not yours. There was a time you were not here and the earth was here. And there will be a time you won't be here. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تغرق لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا When it comes to our eyes, Allah Ta'ala says, ولا تمدن عينيك It's not whatever you want, you can see or watch or look, but it is what I want. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم And when it comes to our earrings, It's not or our hearings, you can say, your ears or your hearings. He subhanahu wa ta'ala says, wala, wala tajassasu. Wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. You know, do not try to spy over people. Do not try to know people's secrets which they are hiding. Whenever it comes to our ta'am, he says what? Wakulu washrabu wala tusrifu. Yes, eat, yes, drink, but make sure you have measures. It's not everything you want to eat, you eat. It's not any way you want to eat, you eat. Wala tusrifu. And when it comes, when it comes to our alfaz, Allah Ta'ala says, وَقُولُوا لِلنَّاسِ husnan. When you are to utter a word, make sure it's something that is good. Make sure it's, it's something that you want to hear from people. كَمَا تَدِينُ Tudan, says Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. And when it comes to places of our going, wherever we want to go, Allah tabaraka wa ta'ala dhabbata majalisana says, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Make sure it is a place where people out there are not backbiting, are not, you know, occupying themselves فِي مَا لَا يَعْنِهِمْ min xusni islami almari says rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tarkuhu ma la yani even our thoughts are controlled by Allah inna ba'da dhann ithm Allah says subhanahu wa ta'ala even the way we reflect the way we see things our interior Allah tabaraka wa ta'ala says la yaskhar qawm min qawm do never ever think that you are better than a person as long as you are alive, you cannot claim superiority. Superiority is only when people are in Jannah. The people are in Jannah are superior than the people are in hellfire. Billah. May Allah make it easy for all of us to make it to Jannah. It is said that Uwais al-Qarani anhu wa rahimahu, named as Sayyid al-Tabi'in, he was once eating and a dog was, you know, barking on him. He said to the dog, just eat your side and let me eat my side. You're not better than me, and I'm not better than you until we go on the day of judgment. If you make it to Jannah and I make it to hellfire, then you're better than me. Al-Imam Al-Shirazi rahmatullah alayhi said, فَلَا تَرَيَنَّ فِي الْأَرْضِ دُونَكَ مُؤْمِنًا ولا كافرا حتى تغيب في القبر فإن ختام الأمر عنك مغيب ومن ليس ذا خسر يخاف من المكر So whatever we do, we know these words of Allah tabaraka wa ta'ala, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا And when people do bad things to you, you say, I have the right to retaliate. Allah says, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Pardon, because you want Allah Ta'ala to pardon you. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ to make it short allah tabaraka wa taala dabata hayatana kullaha wa saada tatahaqqaqu bi qabuli hadha dabt الرباني سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب May Allah تبارك وتعالى grant us softness and tranquility and rest of soul and hearts by the dhikr of Allah tabaraka wa ta'ala هذا وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين ورحمة الله الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وفي مقدمتهم سيدنا ومولانا محمد المصطفى sallallahu tabaraka wa taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi ahli al-karami wa safa. Inshallah, after Salatul Jumu'ah, we have a, a, a very a great guest, I would say, one of the people whom I know uh, making the tafsir of Al-Quranul Karim since I was a little boy up to now. One of the people in our country whom every, who everybody know and love and love to listen and love to learn from. because he's busy all his life with the Quran. So inshallah, after Salah, I'm begging all of you to give him time, inshallah, tabaraka wa ta'ala. And it's not going to take very long to give a speech, and that will help, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Because if your hikmah, if your ilm comes from the Quran, what can you expect? يؤتي الحكمة من يشاء الله says ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا That's one of our sheikhs. He's here, Al Ustad, Fadilat Al Ustad Ali Sal. Inshallah, Tabarak wa ta'ala. After the prayer, we're going to make the <laughs> prayer short. We wanted to make the khutbah short and the prayer shorter so that inshallah ta'ala we all can benefit you know from his vast knowledge and vast wisdom bi idhnillahi tabaraka wa taala allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna tibaaca wa arina albatila batilan warzuqna jinaaba allahuma la tadac lana fi maqamina hada danban illa gafartah wala hamman illa farajtah ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها في يسر منك وعافية يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما wajal tafarruqana min baadihi tafarruqan maasuma wala tajal fiina wala maana shaqiyan wala mahruma allahuma inna nasaluka an tansura ixwanana fi libiya wa ixwanana wa axawatina fi libiya wa fi lmagrib allahuma ansurhum wansur jamica almuslimin allahuma ansur alislam walmuslimin allahuma ansur alislam walmuslimin allahuma aciz alislam walmuslimin wa acli kalimataka kalimat alxaqi waddin allahuma ansur man nasara addin واخذل من خذل المسلمين واجعلنا ممن نصر الدين